Thank you. Holy Ghost. kamu nurut milik kalian dan pada murtad waa waaw asalaamaaleykum mbokki Joal Fadiouth TV euh, ñu ngi leen di bëggee di leen jaajëfal si suivre bi ngeen di suivre sunu seen bi nga xam ne moo Jifa TV seenu dëkk bi dëkk bi tey nag ñu ñëw fii si Njindeyeem euh, marché bu ndaw fekk fi benn lël lël boo déggee lël wax cosaan wax njulli yàgg na fi waaye nag euh, ñoom ñu ngi koy gën a dekkil parce que lu mu métti métti jamono bi mu ngi changé mais ñoom bàyyiwuñ seen culture waaw tey nag dañu nekk ak ñoom sëñ bi ziar nañ la nuyu nañ la. waaw ñu lay delloo ziar bu man Jéeju laa tudd Jéeju. Jéeju ñu ñëw fekk si leen fii tey si lël bi. waaw mun nga ñu xamal maanaam cosaanu lël bi. waa cosaanu lël bi lenn rek la parce que lël moom fii lañ ko fekk daa nekk li nga xam ne cosaanu séeréer la mhm. parce que séeréer culture am lépp la séeréer maanaam. si mag yu njëkk yi séeréer bu dugul woon leen rek duñ ko may soxla soxna waaw parce que am na dëkk yoo xam ne boo fa demoon te lëluwoo doo am soxna te góor balaa ngay mot góor dañu wax ne il faut nga dem àll ba ba pare soo xam ne kii góor la waaw pe ëllëg tamit euh, day aar dalay aar si lu bëri bëri ba loo xam ne. tey ban façon aar la la mën a aar. waaw dalay aar si lu bëri parce que tey yow ñaanuñ ko yàlla mais boo duggee lël tey am na loo xam ne dinañ la ko fa dinañ la fa wax loo xam ne tey boo fa gisatul mag sax mag boo xam ne nekk na si biir kër gi mun nga aar sa bopp aar biir kër gi aar ñëpp ñoo xam ne say mbokk lañ waaw parce que xam-xam dinañ la fa wax xam-xam fa wala fa cosaan waa looloo tax daal wax dëgg fa yàlla ñun fu ñu dégg lël dañuy dem parce que dañoo bëgg li ñu doon dañoo feer si séeréer bi ñu doon moo tax ñu fonk leel bëgg ko te dañ koy bëgg di dund tout le temps

xale yi bu ñu gisee lël dañoo fonk seen culture ba nga xam ne bu ñu déggee lël am na yeneen hors du village dañuy dem daw pour dugg ngir fonk seen culture. waaw après bu ñu dawee day am selbe li tax ñu naan selbe moo nekk ñi lëlu ba pare ñooy selbe. lël bi Joal la nekk wala yéen a ko fi andi. lël bi xale yi ñoo dawoon dem Diofior mais bi ñu dawee dem waa Joal lañ mais da nga leen jël si indi leen pour remettre leen seen parent waaw. wane culture boo xam ne tamit seen parents yi dinañ kontaan. waaw lël bi ku dugg néegu góor la walla waaw lël nag. xëy na boo duggagul néegu góor doo ko def. mais il faut nga dugg nee néegu góor ba pare. nga suñ soog lay dugal lël. waaw lël léegi lël bi tey ku duggul lël si seen cosaan lan lañ lan lañ koy considéré. waaw comme ku duggul lël dañ lay considéré comme jigéen nga yow duñ la considéré góor. duñ la parce que fu góor yi di daje doo fa nangoo dem kon yow jigéen nga waaw. mais damay gis damay gis ngeen di def ay affaires yu garaaw ay paaka ay jaasi yi loolu yëpp lan la quoi. waaw moo nekk li ma la sànq rek dama la ne lël boo si duggee mun nga aar sa bopp tey boo si duggee di nga xam loo xam di nga dina di xam loo xam ne tey bu la neexee mun nga jël paaka jam ko sa biir bi paaka bi dam loolu yëpp mbirum cosaan la. waaw yéen daal li ngeen di def fierté ngeen si àndal. waaw moi te du ngeen ko bàyyi. waaw si man boog am naa si fierté bu baax a am naa si fierté. waaw dañu ne ku wàllu sa dëgg tëggul. waaw loolu la ñu wàllu wu leen. waaw waa dëgg la waaw. ñu leen di jaajëfal ñu bëgg nga présent wan ñu gaay sama nijaay ziar nañ la waaw. delloo ziar bu baax euh, bi dañu bëgg nga may nga wax ñu si tuuti ci lël bi. waaw du nuyu ñëpp di sant yàlla bu baax a baax a baax di nuyu képp doomu séeréer maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu suñu kumax yi kumax mooy ku jiite affaire lu lel suñu paa yi quoi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp parce que tey lii xalaatuñ ko woon ñu toog booy def leen mu am benn télévision bu fi ñëw di ñuy jël maa ngi sant yàlla bu baax di leen. waa Joal non man du ma waa Joal mais waa Joal la parce que sama turando waa Joal la mais waa Fadial la dund affaire lu lel lool man bu ma gisee góor bu dugul leen daf may métti lool lool lool lool. est-ce que ñi fi nekk ñii ñëpp dañoo ñëw fii wala fi lañ dëkk. noon am na ñu ñu bàyyi ko ci yeneen dëkk nag. yeneen dëkk pour lël bi. pour lël bi kese. parce am na ñu jógee Fadial. Uh-huh. am na ñu jógee Diouf am na ñu jógee booy dëkku ndox yi ay caalaan ay jinda ngir def fi tey kon nga xam ne lii du caaxaan quoi gëm nañ ko fier nañ ci. léegi lan ngay wax. mbokk séré yi nga xamante dañu bëgg a suul xamuñu ko wala parents yi nga euh bayyi wuñu seen doomi pour ñu gëstu seen seen cosaan. di ragal di la gërëm ci wax bobu nga wax lu am solo la. Eh, di ñaax parents yi. ku nekk wa jur bo ne am nga ay doom yo xamante wa ay séré la même bu dul séré sax kep ku nekk doom bu doomu séré maa ngi lay gërëm di ñaan seen parents yi. ñu bayyi seen doom yi parce que loolu moom lu ci gis. ay ab njëriñ la rek man xam naa ci lu baax a baax loo xamante ne man gës naa ko ci bu ma ci génnee tamit gëstu naa ko ci ba mu yóbbu ma ci kanam. ñu ngi lay jaajëfal. waaw di xooli yeneen gars yi léegi sëñ bi euh, dafa ñi nga xam ne ñoo nekk ci lël wi mooy njulli yi. Euh, léegi seen parents yi ñu ngi dañu ànd ak ñoom wala. seen parents yi c'est que tamit euh, seen parents yi dañ ñoo jël dénk ñu dénk ñu seen doom yi. waaw dañ ñëw jël denk ñu seen seen doom yi waaw mais ñu ngi fi. ñu ngi fi waaw. léegi est-ce que mun nañ waxtaan ak ñeneen koo xam ne mag la waaw koo xam ne mën nañu ko présent ñu wax mu wax ñu si lël bi. waaw sama nijaay ziar nañ yaa ngi si télé Joal Fadiouth TV. ñu ñëw fii gis fi lël bi ànd si ak yéen pour couvrir ko parce que cosaan la dafa dafa dafay baax. Uh-huh. Euh, aduna wi xam cosaanu séeréer. <laughs> yow nan nga jàngate lël bii nii yow en tant que séeréer. Euh, lël bi waa xam tuka lël la euh, lël tamit daa doon lu baax doon aada doon aada séeréer waaw loolu la loolu moo tax tamit euh, ñun tamit buñ ko déggee rek dañuy ñëw pour teewe ko waaw loolu mooy cosaan bi. léegi xale bi dugg ci lël lan la ko lel bi di jëriñ ëllëg. lu ko lel bi dina ko jëriñ lu bëri. waa parce que cosaanam la. sa cosaan bu la réeree rek maanaam dangay ngay da ngay réer waaye sa cosaan boo ko xamee rek di nga mucc waa daf koy muccal waa daf koy xamloo te dina ko mun a tënk mu xam lu bari mun a téye lu bari waaw. léegi yow euh, waajur yi nga xamante ne nii dañu bëgg a négliger lii ndaxte lii cosaan la buñ ko jaaralee si yoon fa mu commencé ba tey du suux léegi waajur yi ko bàyyi. defal duñ ko lan nga len di wax non ñoñu dañu réer rek wa parce que aduna euh ñi dañu réer ñi réeruñu mais képp ku réer mun naa ne di nga ko bàyyi waaye képp ku réeru di nga dellu ci wat ñew defaat ko ñu ngi leen di jaajeufal ok wa ñu jël ambiance bi jël jël leul bi ba ci kanam jërëjëf waaw jërë ngeen jëf ibu jëlal ma fetti jëlal ma lepp jaajëf ok man Kansiri Yesu Baba Kansiri Kamonya man Kansiri Yesu Baba Kansiri Kamonya man Kansiri Yesu Baba Kansiri Kamonya man Kansiri Yesu Baba Kansiri Kamonya man Kansiri Yesu Baba Kansiri Kamonya man Kansiri Yesu Baba Kansiri Kamonya man Kansiri Yesu Baba Kansiri Kamonya man Kansiri Yesu Baba Kansiri Kamonya man Kansiri Yesu Baba Kansiri Kamonya man Kansiri Yesu Baba Kansiri

comme que Babacar laaj nañ nii wax nañu si lël bi. ñii wëy bi ñuy wëy nii lan lañ lan lañ siy wax. mbile taananto séeréer. maanaam buñ ko bëggee tekki ci wolof. day xawa indi jaxasoo quoi. mais maanaam foo déggee. daanaka mbile foo maanaam kooku fu mu déggee séeréer quoi. waaw mu ne Joal maanaam Jong mooy Joal. Uh-huh. Joal la déggee séeréer. Joal la déggee séeréer waaw de. cax waaw affaire ji biir waaw mu ci waaw bàyyi leen seen yooyu te wax ñu. non ci lañ bokk. ci lay waaw ci ngeen mais cax parce que loolu li nga li nga tekki nii. am na lu ko tënk si suuf. waaw loolu foofu la nag. waaw mu ngi ci suuf woy ji am na lu am na lu muy firi ci suuf. waaw ñu ngi leen di jaajëfal. waaw i bu jëlal demal continuer jël. Bawo masambariye salmala woro masambariye Sani masambariye dama salmala woro masambariye dama kumbawo dama sadi masambariye eh, dama kanga salmala woro masambariye dama kumbawo dama sadi masambariye dama Thank you. waay woy bi lu muy wax woy bi. Ah. bi lu muy wax. waaw li muy wax nag. dëgg la mënuñ koo wax fii parce que mooy ah. mooy secret bi ñuy yóbbu si lamb. waaye fii faram fàcce ko rek. waaw mooy li ñuy yóbbu fii moo nekk ah, mënuñ koo tekki daal. waaw mënuñ koo tekki. ay mboot la waaw mboot la si biir. waaw parce que instant yii yi ñuy woy yëpp dañ koo mën a woy nii rek mais duñ ko tekki. parce que boo ko tekkee rek li nga li yóbbu woon àll kon du ko jarati. waaw ñeneen dañoo a ñëwaat wala na babinyok hindi tam natin dama jaye natin Kabin yokindi an la dindama, ya e la dindama, ya e la dindama, ya e la dindama, ya e la dindama. Raje bina beru raje, kaguna la po balangi tumba, korom di mataku jengwai jeng, jengwai jeng. Raje bina beru raje. Daguna la bobalam jitul mbaal borom di matako jeng waay jeng jeng waay jeng Racce biram beru racce Daguna la bobalam jitul mbaal borom di matako jeng waay jeng jeng waay jeng Racce biram beru racce tàggu naa laa booba lam jiitul maar borom di ma tàggoo jën waay jën jën waay jën tàggu naa laa booba lam jiitul maar borom di ma tàggoo racee biram ñëw racee jën waay jën racee biram ñëw racee papa ziar nañ la ñaaw na nga ziar bi naka la ibu saaj waaw pa ibu ñu lay ziar bu baax euh, lan nga ñu mëna wax si si si leul bi leul gi mhm. cosaan la dañ ko fi fekk suñu mam yak suñu mi day yi diko def muy jigen muy gor kon ba buñ fi judo dañ ko mu wara dekkal wante buñu jël aada bo xamne du suñu aada séeréer lii la xam lii la cosaanoo lii lay dunde léegi mu mel ni jamono ji yàqu changé na léegi. jamono gi yàqu na te xale ko yàq ndax boo koy waxee mu ne léegi jamono gi lii amul. mais est-ce que tamit parents yi joué wuñ ci amuñ ci part de ndax ndaxte yóbbootuñu seen doom yi si lël yi. waaw loolu am na ci ndax dañu xaw a tardé mhm. ndax jamono mu njëkk da nga doon yóbbu sa doom ci lël ba mu am ñaari weer ñetti weer. boo gisee lii moo am muy léegi ñaari fan ñetti fan xale mënu see am xam-xam wante bu nekkoon ci àll ba mu am ñetti weer ñeenti weer xale boobu dina xam lu mu war a wax ak mag xam lu mu war a tontoog mag xam ndeyam am yar am teggin xam lu mu war a tayoo léegi ñu gis la ngay ceeb ceeb bi ceeb bi waaw suñu cosaan la cosaan bi maanaam lan lay lan lay aar la wala am na ñoo xam ne ñëpp yemuñu léegi xale bi bu jógee ci bu demee ci lël ba ba ñëw. Ah. moom lan la lan la lan la ko lël bi di jëriñ. lan la ko mu koy jëriñ. Mhm. bu nekkee ci ñun. am na loo xam ne. tey boo maak yow bu ñuy waxante. Mhm. léegi boo ma waxee baat. xam naa lu ma la war a tontu. Mhm. xam naa fi ma war a dëggaat tànk. war bu am xam-xam. xam loo war a wax mag. xam boo war a wax sa baay ak sa ndey. wante xale yi xamuñu léegi buñ fi jógee li nga xam ne moom la fi bàyyi woon moom laa cosaanoo. léegi ñi nga xamantene ni duguñ ci leul ñoñu lan lañ leen di considérer ñoñu waaw ñàkk xam-xam. am de sen seen doon goor day des. sen doom goor day des. léegi lan ngay wax ñi nga xamantene ni nii yóbbuwuñ seen njaboot yi ñu xam sen ciosan lan nga leen di wo ban appel. ban appel bobu man bu nekké suma doom. dama koy wax né eh. bu nekké ci jamanu jëk bala nga am jabar nga dem ci leul lan nga ñuy sanni sa dernier cadeau. ah. man xale yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñoo si dugg nañ ko fekk ay ati at seen doom yi gën a yàlla ak yonante ba bu ñu amee doom nañ leen dugal ci lël bu ëllëgee dinañu xam fu ñu war a dégaat seen tànk. ñu lay ñaanal di fan ak wér gu yaram amal nga ñu njëriñ. waaw macha allah bu nekkutoon yow tamit xale yi dañuy réer. mais ñuy lancer appel rek parents yi. ñuy ñëw di andi xale yi. ci lël yi ñuy xam seen cosaan. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax papa. Thank you.

jigéen jigéen gi fay leen baar. jigéen jigéen gi fay leen baar. wóor wóor wóor. jigéen jigéen gi fay leen baar. jigéen jigéen gi fay leen baar. jigéen jigéen gi fay leen baar. jigéen jigéen gi fay leen baar. jigéen jigéen gi fay leen baar. jigéen jigéen gi fay leen baar. jigéen jigéen gi fay leen baar. jigéen ci kër gi feelil ba jigéen ci kër gi feelil ba jigéen ci kër gi feelil ba jigéen ci kër gi feelil ba jigéen ci kër gi feelil ba jigéen ci kër gi feelil ba Jigéen jigéen gi jigéen ci kër gi fay leen baar. jigéen ci kër gi fay leen baar. jigéen ci kër gi fay leen baar. jigéen ci kër gi fay leen baar. jigéen ci kër gi fay leen baar. jigéen ci kër gi fay leen baar. jigéen ci kër gi fay leen baar. jigéen ci kër gi fay leen baar. jigéen ci kër gi fay leen baal jigéen ci kër gi fay leen baal jigéen ci kër gi fay leen baal jigéen ci kër gi fay leen baal jigéen ci kër gi fee leen baar. jigéen ci kër gi fee leen baar. jigéen ci kër gi fee leen baar. jigéen ci kër gi fee leen baar. jigéen ci kër gi fee leen baar. jigéen ci kër gi fee leen baar. jigéen ci kër gi fee leen baar. jigéen ci kër gi fee leen baar. jigéen ci kër gi fee leen baar. yaa boo ñëw tam kañ ñaareel. yaa boo ñëw tam kañ ñaareel. yaa boo ñëw tam kañ ñaareel. yaa boo ñëw. yaa booy ñëw tam kam ñaale. yaa booy ñëw Jai boy nyop tam cam kam nyalin. Jai boy nyop tam cam kam nyalin. Jai boy nyop tam cam kam nyalin. Jai boy nyop tam cam kam nyalin. Jai boy nyop tam cam kam nyalin. Jai boy nyop tam kam nyalin. Jai boy nyop tam kam nyalin. Jai boy nyop tam kam nyalin. Jai boy nyop tam kam nyalin. Jai boy nyop tam kam nyalin. Jai boy nyop tam kam nyalin. Jai boy nyop tam kam nyalin. Jai boy nyop tam kam nyalin. Jai boy nyop tam cam nyalin. Jai lên cha ngôi nhục tam con nhà lên cha ngôi nhục tam con nhà lên cha ngôi nhục tam tam nhà lên quất tam quất quậy à cha ngôi nhục tam con nhà lên cha ngôi nhục tam con nhà lên cha ngôi nhục tam con nhà lên cha ngôi nhục tam con nhà lên cha ngôi nhục tam con nhà lên cha ngôi nhục tam con nhà lên cha ngôi nhục tam con nhà lên cha ngôi nhục tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam nhà lên Sabo yung tong tong yale. Sabo yung tong tong yale. Sabo yung tong tong yale. Sabo yung tong tong yale. Sabo yung tong tong yale. Sabo yung tong tong yale. Sabo yung tong tong yale. Sabo yung tong tong yale. Sabo yung tong Go! sao sambamnan batuliande sao sabu sambamnan batuliande sambamnan sabu sambamnan batuliande sambamnan sabu sambamnan batuliande sao sabu sambamnan batuliande sambamnan sabu sambamnan batuliande sambamnan sabu sambamnan batuliande sao sao mà còn đó mà cũng để ra bằng ta sao mà cũng yêu để ra bằng ta sao sao mà mà cũng yêu để ra bằng ta sao mà cũng yêu để ra để ra bằng ta sao lại cái lúc nhớ lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Takuna la bobalam la bobalam ji tumbar korom ji mata ko jangwai jing ache biram benu ache jangwai jing takuna la bobalam ji tumbar te biram beru gate jengwa jeng takuna la bo balam ji kuma borom ji mata ko jengwa jeng raje biram beru raje jengwa jeng takuna la bo balam ji kuma borom ji mata ko jengwa jeng raje biram beru raje jengwa jeng takuna la bo balam ji kuma borom ji mata ko jengwa jeng raje biram beru raje jengwa jeng takuna la bo balam ji kuma borom ji mata ko jengwa Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, taman. man. Give ya.

Jaga bawa kawan, kawan.

nuyu nañ la asalaamaaleykum maire nuyu nañ la. fay def cosaan tur bi naka la. fay nañ la fay nañ la. tur bi naka la. Binta Faye. maire cosaan bi ngay def nii. lan la ci maam yi. Mhm. def. sa doom ba demee sa doom bu demee ba dikk xaar ba ma musóor pare waaw. ñu suñu maam li lañu xam so demone àll ba ñew dañ la daan tëral toogloo ci ci ëtt bi ci penc ma ñepp dajja fa ngeen defal leen baaxu maam sa sa dugub ak sa xorom ak sa laalo nga wis leen ko laalo ni mu ra taxé non la sa lepp di ra taxé dugub ni mu sakane non la sa lepp di sakane xorom ni mu safé non nga safé ñepp aduna yëpp war nga këpp loolu la ñu xam ci suñu maam yi. léegi lan nga gis jamono ji ci jamono ji gis léegi dañoo bàyyi seen baaxu maam di def yëfu tubaab. waaw tubaab ñoom ñu gis ñun dañu jéggaani. dañoo jéggaani bàyyi suñu mbaaxu maam di def yëfu tubaab. léegi lan ngay wax si jamono ji léegi lan la lan la xale yi wala je parents yi war a comporter pour ñu mën a delloowaat si cosaan bu njëkk ba. suñu maam yu njëkk ya lañ daan def buñ ci toppee duñu réer mais bu ñu toppee yëfu yi rek bàyyi suñu yëfu maam yi rek duñu réer. def nit ñi reer nañ ba pare ndax nit ku nekk fi mu ne nii waxatoo sa sa waxu cosaan ci waxu tubaab ngay waxati léegi defatuñu waxu cosaan defatuñu defu cosaan defatuñu waxu cosaan waxatuñu waxu cosaan ci waxu euh, yu njëkk yi léegi la ñuy defati léegi waaye defatuñu lu njëkk waaw loolu laa xam nag lii la sama maam daan def ma gis ko ci moom di ko def da ko di ko defa samay set yii yëpp samay set lañu du samay doom samay set lañu ñii ñoo toog yëpp samay set lañu moo tax ma defal leen ko ndax sama damaa gis sama maam di ko daan defal samay nijaay ak samay baay ma gis ko moo tax ma jaar ci def ko. ñoom tamit ñu war a roy si yow. continuer di ko def. waaw tradition bi di gën a jëm si kanam. voilà loolu laa bëggoon nag. moo tax ma woon leen ko ñu gis ko. ñu ngi lay jaajëfal. Thank you. na barke alqur'ani karim nu ngorgorlu o ga'a keke refe mete i caaxaan ta jamane fa meraan a qola ɗak jegooga mbal o jeg no xiid ret na koɓe wara cek tama a pambe ta i nu yooɓandaan a yooɓan keke koy refe caaxaan parce que nu andan no qoox nuun ne caaxaan The Josan of it, back in the bin men, down in the bin men, down out in the bin men. Kon nu bi yangan, bi yangan ni bahi ni ni, ya kam roga rab dem. Naman, eh, naman. Naman. Lu la ngor ka koy. Naman. Eh, ki yo eh. Eh, nu la ngor keke. Naman. Nebe ga aka nu bi yanena. Naman. Membi yanna nu na bera berten. Naman. ni erna jow ab erna yara a an nafaab a anda yaay o ndeb o retanga bo ɓisan na koɓ wara anda faab wara an ke daka wan ke warona fa kilifa o ga Undeb, ndeb a yar wa yaro o ndeb warano luley faye fa ñaam ga a weke i ngara ni nuun fop nu ande den to tun gara a saɓana nuun meen a mbiyana nuun meen a ñaƴana nuun seɗakinoyo yungatanga meke fat nu ndokna a yewlunoke paax pour adna a war ke andona lay fa faapo lay an ke warona lay fa yo of waro an ke layona fa kelfa of waro an ke layona fa maagof nu mbiyangan rek xam nu teg e eh, leng koy i njegu ka andoona yee xan i ngidmin Wuye Njaay ka Wuye Njaay Wuye Njaay Wuye Njaay

kalba wo wuyo ñaay wo faaxu to yaro meke andoona yee wo ref meen wo wuyo ñaay wo yarooxu wo wuyo ñaay wo andu maaka ɓeeren wo wuyo ñaay a mbuganga o maaka waranga jaajo layin e ñaajanaamo ten wo wuyo ñaay yaasam roog rab dom wuyo ñaay yaasam to roog a fi'anam way wayo njaay yagam ke bugoona na adna xeɗa rooga fiyanamo ten ga'a ngoor ke ndefna mbinna tout a mbaxade ta wo ya njaay na nanoona ya o ndeɓa lang na ndeneen refe maak refe ndeɓ yo njaay yagam ke ka fiyana omo bo fiyana no bo no wagan a yooɓaan yasam te fiyana mbo ten Yaayam roga rab ganun Yaayam roga rab ganun Yaayam roga fiyana nun sudura Yaayam roga fiyana nun wa Ganun bugla pasin na kadan roga fiyana Kadan nun bugla